سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجلين نيو ديلن زيارة ديلن بالحقة ديلن بال دي لنيان يالله سبحانه وتعالى مبولا يجقل ñu di leen ndokkeel ci bis bu màgg bi nga xam ni mooy sangu bis yi di bis aljumaa suñu xutba tey dafay delluwaat ba léegi ci société bi ci nu ñuy dundee am yenn yëngu-yëngu yoo xam ni dañ koy def yoo xam ni dafay laaj ñu laayante biir dal ci fàttalante tuuti wax la ci lislaam jàngale العمال واجبات وحقوق ولا الأجير واجبات وحقوق نيغا خامني داني ليغي تي ليغي اك كيغا خامني موكاي ليغي لو تي ليغي دافا ام اي حق يو خامني داف كو ورلوك ديغنتي كيكوي ليغي لو غيناو بومو جوخي حقو يالا با باري ku ci nekk ci ñoom ñaar am na xaq boo xam ne seen diggante ak sa borom la am xaq yoo xam ne seen diggante yee ñaar la ginnaaw xaq yooyu it am leneen loo xam ne ay warugar la ci ki nga xam ni moom mooy liggéey yoo xam ne daf ko warloonteeg diggante ki nga xam ni moom moo koy liggéeyloo mu xam ne chariatul islam ginnaaw ba nga xamee ni ku nekk ci ñun dafay am xaajo boo xam ni moom mënu koo fajal boppam nit mënul nekkul koo xam ni lu mu soxla lu mu bëgg rek mën na koo defal boppam faaw yàlla dafa bind tëral faw ku nekk ci ñun am yoo xam ni daf koy soxla ci beneen moroomu nitam loolu ma waral nga gis léegi-léegi nit ki moom mooy nekk ki ñuy liggéeyloo léeg nga gis ni moom mooy nekk kiy liggéeyloo nga xam ni kenn saxul rek nekk ni moom saa su ne moom dañ koy soxla ngir ñëw di ko liggéeyal waaye am na foo am na jamono joo xam ni moom mooy dem ñu koy liggéeyloo ak daraja bu mu mënti am nag ak xam-xamoom bu mën fu mënti toll diplôme bi mu kawe kawe kawe am na foo xam ni bu fa tollee dañ koy liggéeyloo ginnaaw ni kon nag àdduna noonu la ko yàlla tërale chariatul islam daldi di tëral ay yoon nag daal koy organiser relation ñoom ñaar ñooñu mooy kii liggéey ak koy liggéeyloo ku ci nekk am ay xaq yoo xam ni moom nga yeyoo waaye am ay xaq yoo ay ay gorgar xam ni moom moo gàll sa kaw bu ko defee l'islam de la say xaq la ko fàttalil ki nga xam ne moom moo la sant liggéey waaye it di la fàttali li nga xam ne moom mooy say warugar ndax nit bu deful li nga xam ne mooy ay warugaram amul sañ-sañu laaj xàqam balaa ngaa laaj sa xàq day fekk nga def li nga xam ne moom moo la war ba pare bu defee loolu lañ bëgg a fàttalante bi ci njëkk mooy dañuy xemmemloo ki nga xam ni am na lu mu bëgg liggéey a xam ne kii liggéey dafay wuute léeg léegi ci ñun suñu société ni mu tëddoo wala mën nga ne ci àdduna bi yëpp am na koo xam ne danga koy jël signé moom contrat ngeen war a liggéey ay at ñu koy tuddee léeg-léeg fonctionnaire am koo xam ne yéen ñaar contrat bi ngeen am mën naa ni bu baree ba at bu baree ba bari moom moo dul at ci lay yem lu mel ni ouvrier nga xam ni moom moo la war a liggéeyal sa kër moo la ko war a tabaxal ولا وارو مونا دخل تبخل سا اموار دفرل سا اموار ولا سلال ولا مونيز ميتاليك ولا وارو دفرل سا بونتو مونيز بوا ولا المنيوم كوتي نيك تي نيوم بو خولي دا فاي ام اي لو خاندي مو كوي ووتيلي كينين كي كو جيكي كي موم سين كونترا بيلين بيلين لي بيلين بولي اي اتلا اي حق يو خاندي مو ورسا ديغنتك مو ak ay wargal yo xamni mom mo wat ci mom ci digënté yow am keneen koo xam ne nag moom da koo sant liggéey moom da koo mu ñëw liggéey liggéey bi mi ngi aju ci li muy defar bu pare rek mën na laa wax nag ne ci délai sàngam laa koy defar mën naa koo defar ci weer wala juróom benn weer wala ci at laa koy liggéey am koo ci xam ni it moom bokk nekk koo xam ni da koo jël mel ni ci entreprise muy liggéey wala sa école waaye dafa nekk koo xam da nga koo jël sa kër mu lay liggéey li ñuy tuddee bon mu lay jàppale ci liggéey kër kooku it ci lii bokk kon gis ni ku ci nekk la nga yëngu xamal ni moom li ñuy wax nii daf la concerné moo tax bi ci njëkk biñ lay laaya biire mooy nga tànn ki nga xam ne moom ngay liggéeyloo mu nekk koo xam ni ku am réputation bu baax la ku am jiw bu rafet la ngir roy li nga xam ni alquran moom la wax ci diggante li xewoon ci yent yàlla Shuaybu ak yent yàlla Moussa seen histoire bi nga xamee ni yent yàlla Moussa bu ndoxatoola nañ ko ba mu génn ba dem Madiana ba fekk fa Shuaybu ñee mu ànd ak doomu ñaari doomu mu jigéen ñi ak la ca xew bi nga xamee ni ñëw na bëgg a mucc yent yàlla Shuaybu dafa ne ko dinaa la fat làq la fii waaye bi loolu amee kenn ci njaboot gi da koo proposé ni ko ndax bàyyi doo ko jël mu nekk ajir boo xam ne danga koy jël di ko liggéeyloo seet yàlla Shuayb doom ji wax ko loolu ne ko ndax kat ki nga xam ne moo gën ci ki ñuy liggéeyloo moo ko xam ne alqawiyul amin la alqawiyul amin mooy kan alqawi yi mooy koo xam ni am na kattanu li nga xam ni moom lañ koy sant mu def ko moo xam ci xam-xam bi la bu fekkee liggéey bi dafa ci xam-xam moo xam ci kattan gi la bu fekkee liggéey bi dafa laaj doole kon ka nga xam ni moom ngay tànn ni koy liggéeylu lu mu ci manti doon na nekk koo xam ni man na lañ koy defloo bu fekkee maçon bi la na nekk ku qualifié bu nekkee menuisier bi na nekk ku qualifié bu fekkee ki nga xam ne da nga koy liggéeyloo sa kër jël ko compagnie yi na nekk koo xam ne ku fonk liggéeyam la li noonu it bu fekkee ne ci wàllum entreprise ci leneen ngeen liggéey na nekk koo xam ne ku xereñee la nga koy sant la kooku mooy alqawi al amin nag mooy koo xam ni ku wóor la ku wóor mooy koo xam ni li ngeen di wax ba tënk ko danga jël sa alal jox ko ko alal jooju dana la ko sàmmal bala nga ci bëgg mu defal la ko na ngeen xam ni moom ngeen li mu ngeen tënkoon ci seen engagement ci engagement bi mu jëloon maanaam kon moo tax ñu ne balaa ñu wax benn xaq wala balaa ñu wax benn waajib dañuy wax ni balaa ngaa tànn ki ngay liggéeyloo na koo xam ne alqawiyul amin la léegi ñu jëkkee ci li nga xam ne moom mooy warugaru ki nga xam ni moom mooy jël nit di ko liggéeyloo li nga xam ne ay warugar la ci moom tam war a sàmmante moom ci ki nga xam ne moom lay liggéeyloo bu ngeen ñëwee ba waxtaan ba dëppoo ci kàddu li nga war a njëkk a def mooy fexe ba wax ko ne ko nangam laa lay fay par kañ laa lay fay par semaine laa lay fay wala par bis laa lay fay wala par weer laa lay fay wala par ñaari weer loolu dangeen ngeen koy wax ngeen leeral ko ci début ba ba ku neex xam fu mu taxawee ñaareel bi nga wax ko li nga liggéey loo lan la leeralal ko liggéey bi ci lan lay aju ak it lan lay soxla leeralal ko maa xam ne xam na ko bu ko defee dara bañ a lënk ci moom ndax loolu jotaay bu njëkk boobu li ngeen di tënk moom mooy firnde moom mooy leeral li nga xam ne moom ngeen war a jëmee ci kanam engagement yooyu ngeen di jël foofu mooy tax bu demee ba jamono am ay jafe-jafe wala ak ñàkk déggoo gu am seen biir ñu fàttaliku li nga xam ni moom ngeen déparé woon bu fekkee ne tënkal nga ko ne ko weer sàngam weer dinaa la fay ci misaal dinaa la fay téeméeri junni ñu dem ba weer wa dee nga bëgg koo wàññi dañuy xool la nga xam ni moom ngeen signé woon ci départ ba moom ngeen jëloon ku nekk engagement wala moom weer ba de mu bëgg a laaj lu ëpp loolu wala mu ne li ma liggéey fii ëpp na li nga xam ni moom nga war a fay dañuy dellu ci la nga xam ni moom ngeen jëloon engagement ci départ ba moo tax it li ma liggéey fii ëpp na li nga xam ni moom nga war a fay mooy indi nga leeral ko li nga xam ni moom la war a liggéey. ne ko bis bu ne di nga di nga liggéey ci misaal douze heures de temps douze heures de temps yooyu bu xasee ba jot lu mu doon def am na sañ-sañu bàyyi ko ndax loolu ngeen signé woon loolu ngeen chartante woon da koy bàyyi dem bu fekkee ni it da nga ko wax lu ëpp loolu it mu fexe ba respecté ko waaye moom bu respecté loolu it yow li nga xam ne moom nga chartante woon ak moom ci wàllum payoor da nga fexe ba respecté ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis boo xam ne abu saidin al xudri moo ko nottali mu ne yonente bi dafa tere ngay liggéeyloo nit lu dul ni koo leeral wax ko ne ko boo liggéeyee ba pare chaque bis wala chaque weer wala chaque semaine nangam laa lay fay maanaam li ñuy bañ mooy ngeen ñëw liggéey bi ngeen tënk ko ci la ci yàlla baax na mu ñëw ne loo ma jox rek baax na nga ne waa baax na boobu àq da cee mën a dugg ndax amaana am ngeen ak kersa goo xam ne moo tax seen diggante ba ku ci ne mënul wax li nga xam ne mooy bëgg-bëgg waaye kersa boobu lu mu am am am na ngeen fexe ba loolu ngeen tegee ko à côté ndax lii liggéey la liggéey bu jotee rek dañu xam ne liggéey moo ñu boole boo amee kersa wax la koy yow na nga ko proposé ne ko nangam de mën naa la koo fay ndax li ñuy bañ nga ni ko mu ne la loo ma jox baax na nga ni ko waaw baax na weer dee nga jox loo xam ne amaana gënul ci moom boo defee it moom muy dund ak lor boobu nekk ak yow ci bërëb ba fekk kersa ko fa bàyyi te im saai ni jullit warul di lor moroomu jullitam kon bu ko defee kon dañu war a fexe ba loolu ñu fànqal ko su suñu bopp ñaareel bi mooy nga fexe ba boo ba ngeen sartan ba ngeen dëppoowee ci kàddu ba ngeen war a ànd liggéey yow ki nga xam yaa koy liggéeyloo nga bañ koo sant loo xam ni kattanam yeggu fa kooku li muy gën di dellu mooy ci liggéey doole nga jël nit di ko liggéeyloo bis bu nekk lu tolloog mel ni mën naa ni quinze heures de temps fukki waxtu ak juróom mu koy liggéey loolu li dax nga koy def da nga koy exploité maanaam danga gis ni gor la bëgg na am fu mu tuure ñaqam sàmm ngorom ak diineem waaye mënul dem di ñaan mënul dem di yelwaan te amul fenn foo xam ne moom la jàpp nga ne ah kii def xam naa ni bu ma ko bàyyee te amul fu mu dem xaaral ma jël ko boo ko jëlee ni sañu sañu sañu sañu ma fee bàyyi dem ba proposé ko loo xam ni xam na ni sañul bañ loolu it xàq la boo xam ne jullit def ko war a maytu digganteem ak moroomam kon na nga xool li nga xam ni moom mooy yenu maanaam doomu aadama li nga xam ni moom la mën a fonctionner ci bis bi boo koy sant liggéey nga sant ko ci liggéey boobu xam dana ko def ak teeyu kanam dana ko def it liggéey bi nekk liggéey boo xam ne liggéey bu ñoŋ la liggéey bu mucc ay la ndax boo ko santee loo xam ne ëpp na kàttanam rek li muy andi mujj gi mooy la nga bëggoon ci liggéey ba ci ak ak xereñte day dem ba da nga xam ne loolu dootu ci am préfère kon loolu ñu bàyyi xel ba loolu moo ñuy may ñu fàttale ñi nga xam ñoom ñoo yor bërëbu liggéeyukaay yi léegi-léegi nit jàng ba pare bëgg di wër di wut fu mu liggéeyee ñëw dañ lay proposer da ngay def stage ñu ne nit bu fekke dafa def stage ñaari yoon wala ñetti yoon ci bërepp ñaari yoon normalement dafa war am contrat bo xamni do ko wara am ak bërepp ba ñu jël ko diko fay wër waaye nga gis ni am ñoo xamni dañuy fexé ba jël lay stage nga def ñaari yoon ñaari 6 mois boko defé ñu libéré la keneen ku mel yow ñëwaat ñu defaat ko non lool da ngay exploiter nit ki ta xàq la yo xam dafa war sa digënté ak mom bàyyi woo ko xel waye di ëlëk di ko lay ak sa borom sa digënté ak sa borom donte ni fay wut xam-xam da dafa yokk xam-xamam waye mi ngi jël li nga xam ne na ko xam ak taawam te tollu na fo xam ay soxla soxlaam kenn du ko fajal mo koy fajal bopam ñu war nga fexe ba sam ak li nga xam moy mooy yu dox seen digënté yi ñaar bu fekké nar lo ko jël bu démé ba ben stage bi jeex na ko téré libéré waye li bon moy di jël rek saa su jeexee nga libéré keneen ñëwaat ngay def noonu yaa ngi dund ci xàqu jàmbur kon loolu nga bàyyi xel yéen saa sallam wax ci benn xadis boo xam ne Abu Darrin al-Ghifari radiyallahu anhu moo ko nettali muy wax relation bi war a dox diggante liggéeykat ak ki koy liggéeyloo mu ne kii liggéeyloo nit daf ko war a jàppee comme frère magam wala rakkam mu ne ndax yàlla moo jël kilifteef teg ko seen laxoo ngeen yilif leen mu ne ko xam ne nag sa mag la wala sa rakk bu fekkee nekk na ak yow li ngay def mooy looy lekk bu fekkee da ngeen seq liggéey boo xam lu mel ni bon la bu nekk ci kër la ngay la ngay dundee moom moom lay dundee kenn du ko ber la ngay sol it moom lay sol maanaam yéene nga ko mu dem ba mel ni yow waaye it nee na bu leen leen togg bu leen leen sant loo xam ni leer na leen ni ñoom attanuñu ko wala bu fekkee ne sant ngeen leen mbir boo xam ne xam ngeen ne attanuñu ko na ngeen leen dimbali yéen ñi leen ko sant xadiisi Buxaari ak Muslim ñoo ko ne tey loolu da koy def ngir roy yéen sallallahu alayhi wasallam naa li mu wax ci xadis boobu ki nga xam ne doon na ko liggéeyloo doon na ko liggéeyal ki ñuy wax Anas ibn Malik nee na radiallahu anhu nee na liggéeyal naa yonente bi sallallahu alayhi wasallam fukki at yoo xam ne musuma wax uf uf buñ ko doon wax ci wolof da nga naan musuma jànni musuma jànni mooy musuma jàll baat boo xam ne am naa ci kersa donte ni bés dana ñëw liggéey bi laaj léegi-léegi ma def lu dul noonu mu woo ma yedd ma ne bul defee nii bul defee nii del defee nii waaye li bon mooy di jànni nit ci bërëm ci kanamu ay nawleem ndax nit nit la rek ku ci nekk am nga mbañum rus ku ci nekk am nga ak kersa am na loo xam ne buñ la ko defee say kanam moro say kanam nawle ci kanamu nit ñi da am gàcce ba léeg-léeg mooy waral yenn réaction yi te léegi nit tontu ki nga xam ne mooy kilifaam te ko bu koy def sa du ko tey ndax dañ koo touché dañ koo laal moo tax loolu ñu bàyyi ci bu baax nga xam ni bu yàlla jëlee alal wala daraja wala leen teg ko sa loxo nga jiite nit ci bërëbu liggéey loolu tekkiwul ni danga ko war a jàppee di sa ab mbaam wala ab jaam boo xam ne loo xalaat rek wax ko loo doo jël rek teg ci kawam danga war a am xorma sa digganteeg moom ba pare sàmmal ko ay xàqam yoo xam ne moo war seen diggante beneen bi ci xam ne mo ay warugar la ki nga xam ne mooy liggéeyloo nit ki mooy bu ngeen dëppoowee ci li nga xam ne moom nga ko war a fay na nga ko ko teel a fay bu weer bu deewee yonent bi sallallahu alayhi da wax ci xadis boo xam ne Abdullah bin Amar radiyallahu anhu moo ko nettali mu ne dee fay ki nga xam ne yéen a ngi koy liggéeyloo laataa di fen bi nit boo ko liggéeyloo woon ba weer bi dee nang ko fay balaa ñaqam di fenk xam nga loolu limi tekki ñu ne wër bi le 30 lay jeex lay dee wala le 31 bu fekkee le 27 jotna wala le 28 29 digënté boobu yor nga xaalis bo xam ne moom ko mëna fay nang ko teel libéré nang ko teel fay ndax benen wër bi nga xam ne moo ngi ñëw bokkul ak wër bi wër bi liggéey nako bam dé mu ko ko da ko wara fay bu jeex rek war na fekk nga jox ko ngeen tàmbali benen wër bu fekkee nak jotagul nak mom nga teel ko wax ak moom expliquer ko wax ko li nga xam ne moom moo waral tardement bi waaye li gën mooy nga fexe ba nga xam ni dana teel a jot li nga xam ne moom mooy payooram bi gën a bon mooy nga yor li nga ko war a fayee ba pare di ko dawloo di ko dawloo maan bi dugagul bàyyil ba suba bàyyil ba ginnaaw suba fekk moom njabootam ñi ngi toog ci kër ga li nga xam ni moom lay sàngee seen sutura moom lañuy dundee mooy li nga koy fay ci weer bi yéen saa sallam ñu ne ci xadis boo xam ni abu hurayra radiyallahu anhu moo ko nettali nee na matlul ganiyi zulm ki nga xam ni am na lu mu mën a fayee nit ki ba pare di taafantalu di yéexantu di ko dawloo nee na loolu ak tooñ la tooñaange la koo xam ni mi ngi koy tooñ ki nga xam ni moom la setta liggéey bi buñ ko layewul fii danañ ko laye ëllëg suñu kanam borom moo xaat ci beneen xadis yéen saa sallam ne wane ne ñett ñii danaa xóoloog ñoom yow qiyaama danaa taxaw ci kanamu yàlla layoo ak ñoom jàmmarloo ak ñoom ñett ñooñu mu wax ci kiñ ci gën a yitteel mooy koo xam ni jël na nit liggéeyloo ba nga ko liggéeyloowee la nga xam ni moom ngeen waroon lo moom la warloo woon ak yow li ngeen sartante woon yépp def na ko waaye yow li nga xam ni moom nga warloo ak moom defuloo ko mooy la nga ko waroon fay fayuloo ko ko yam sa sallam nee na kooku sama xulu wàll la gëllëg keroog ëllëg yowmal xiyaama suñu kanam suñu borom kon yooyu mooy yi nga xam ne mooy warugaat yi nga xam ni moo war ki jël nit di ko liggéeyloo ak nu mu ko mën a liggéeyloowee ouvrier la wala fonctionnaire la wala kuy liggéey ci kër la daan dooleem wala keneen ku ci mën ci doon yii say warugar la yoo xam ni moo war sa diggante ki nga xam ne yaa ngi ko jël di ko liggéeyloo bu bàyyi ci xel bu baax bu ko defee ñu ñëw ci li nga xam nag moom mooy warugaru ki nga xam ni moom mooy liggéey bi ci njëkk <clears throat> li waroon kee moo koy war mooy li nga xam ne moom la jëloon ci engagement ci départ ba lañuy waxoon ba tënk ko na ko fexe ba respecté dañ ni bis bi bu ñuy xëy huit heures la ñuy xëy na fexe ba huit heures na ko fekk ci bërëbu liggéey kaayam muy teel dem ci bërëbu liggéey kaayam waaye it bu fekkee ni daf koo sant liggéey melal ko liggéey bi ci misaal mu ne ko dama bëgg nga defaral ma kër gi kër gi boo koy defar euh, maçon la boo koy defar sa euh, suuf bu ne tonn ciment nga ci war a def ci misaal yow bu ñu la waxee loolu nga ñëw jox nañ la ciment bi waa ji am na confiance ci yow wan la ginnaaw nga jël ciment bi daal di koy xaaj jël ci xaaj jël benen xaj bi sàkkul ko fexé mo xam da ko jaay wala nga dugal ko fenen lolu ak akal la goo xam ni boo ko ak sa digënté ki nga xam mom ngay liggéey da nga ko lay ak sa ak sa borom te gis nga nit ki liggéey ak ki liggéey lo dafa am ñaar yo xamni mo leen wara mo leen dimbali buñ koy bàyyi xel ku ci nekk li ngay def sa morom te yëgu ko wala nekku fi na nga bàyyi xel ni amna na bo xamni amul dara lu ko ëmp te li ngay def yëpp mi ci tegg bët feeñ na wala feeñul ëllëg da nga taxaw ci kanamam li nga daan nëbbu mu feeñal ko da war koo mu nekk loo xam ne da ko war warloo ki nga xam ni moom nga ko defoon loolu ku ci nekk bu koy def rek dana nekk loo xam ne ak ndimbal lay doon ci moom moo tax loolu dafay dellu ci ragal yàlla ragal yàlla mooy di bàyyi xel yàlla ci lépp looy def lépp looy yëngu lépp looy wax wala lépp looy jëf yaa ngi bàyyi xel suñu borom bàyyi sa xel suñu boroom ne li def nii mi ngi koy gis. gis nga loolu bo ci nekké day dem ba mujjé gi yalla lay dimbali da ngay ab kersa da ngay da ngay rus yalla nit bu rusé yalla nak mom dana mu def lenen lo xamni manam digënté ma nit la ñukoy gis sax waxtu mala ñukoy ñaké gis sax mala nak ñukoy gis rus yalla moy waral nga dem ba yenn yi da ngoy jombalé sa bop bu ko defé kon moy ak amana amana dafa waral sa digënté ki nga xamni mom mo lay lay lo mooy misaal bi ñu ci joxe sànq bu la joxee alalam ne demal nga jënd ci li nga xam ni moom nga soxla pour liggéey wala yow yaa dem laajte ci bërëb bi ñu koy jaayee bu ñëwee bul def surfacturation nga dem ñu ne la karo mètre bi quatre mille lay jar nga ñëw ne waa ji quatre mille cinq cent lay jar wala cinq mille waa ji it doy loolu jox la xaalisam rek nga daal di dem jënd tànn ni kat waxtaanoon ngeen ba mu ne la boo liggéeyee ba pare nangam laa lay fay. loolu mu lay fay noonu nga jëlaat li nga xam ne moom nga yokkoon ci facture ba daal di koy yokk ca payoor dem lekk ko yaa ngi lekk xalu safara te xamuloo ko te loolu dafa mën a andi ay jéeye mooy ni nit ki li nga xam ne moom lañ la war a moom lañ lay liggéeyloo boo ci deful qualité ba nga xam ne moo war mën na dem mën na am li nga xam ne moom nga liggéey dur bi nga xam ne moom la waroon def lu ko def ci gaaw ak yàqu bu ko defee loolu it mu nekk a xàq boo xam ni dang koy am sa digënté ki nga xamni mo moo la liggéey loo won yén saai sallam mi ngi ne mu ne khadim fi mal sayyidi ra'i wa huwa masulun an ra'iyati khadim ki nga xamni day liggéeyal nit nit ki ala lam gi nga xamni mom la baye ak mom mu koy liggéeyloo mom responsable la ci dana xamni lolu ñuko jox responsabilité boobu dana ko ëlëk yàlla daf ko koy laaj yow ouvrier bi li nga xam ne moom nga sartanteeg nit ki ba nga xam ne jox na la ko bàyyi koog yow lépp loo xam ne def nga ci xamal ni ëllëg da nga taxaw suñu kanam suñu borom mu laaj la responsabilité boobu nga xam ne moo ndegoon sa loxo yow fonctionnaire bi li nga xam ne moom nga seqoon ak sa ki nga xam ne mooy sa kilifa li ngeen tënkoon nga war koo respecté ci liggéey langa nga ciy def sa biir bureau wala feneen loo ciy def te lu dul noonu wala muy noonu xamal ni ëllëg danga taxaw suñu kanam suñu borom mu laaj la ko ak keneen képp koo xam ne yaa ngi liggéey ak liggéey bu mu ci mënti doon li nga xam ne yaa ngi ko yëngu yaa ngi ciy yëngu xamal ni bés a nga ñëw ci bisi nga taxaw suñ kanam borom layoo kon ginnaaw ni loolu mënul ñàkk nag ku ci nekk ci ñun nay bàyyi xel bis boobu boo koy bàyyi xel dana la dimbali baloo boo naree def ak njombe loolu na nekk loo xam ne ak jàjj lay doon ci yow waaye beneen bi nga xam ni moom la ñuy mujjee ci li nga xam ne moom mooy waru garab bu fekkee ni jël nañ ko pour liggéey ba nga xam ni xereñe na liggéey bi boobu sax ci la bokk mooy ni la muy liggéey na nekk loo xam ne muy xereñee loolu dafay dellu ci tànneef ba ba waxoon mooy ni booy tànn na nga fexe ba tànn koo xam ni la nga koy sant xam nga ni mën na ko waaye moom it bu mu ñëw déclaré ni nangam la mën naa nangam fekk ni moom xereñewu ko loolu it ay ay gàllankoor lay andi ay ay jombay lay andi ca la nga xam ni moom lañ ko sant bu fekkee médecin bi la li muy def mooy ñi nga xam ne ñoom lay faj ñoom lay lor bu fekkee ni jàngalekat bi la mu woote ni li li muy woote ni ma xam na ko ñi nga xam ne ñoom lay jàngal ñoom lay lor noonu bu fekkee maçon bi li nga xam ne moom lay liggéey qualité bi ci war a woon nekk du ci nekk menuisier bi noonu keneen commerçant bi noonu mu li nga xam ni moom la ñuy sant nit ki yow mi nga xam ni yaa engagé wu ne mën nga ko na fekk nga leen koo xam ni ku xereñe li ngay li ngay laaj la seydna Aïcha radiallahu anha dafa wax ci xadis boo xam yo saai sallam moo ko wax mu ne yàlla bëgg na nit ki bu fekkee ne dafay def dara mu nekk loo xam ne lu mu jekku la lu mu xereñe la lu mu mënul bul ko def waaye it bul jéggi say prérogative ci misaal ñu ne maçon nga liggéey nga kër gi ba pare waa ji ne dama bëgg carreleur am xamul carreleur nga ne ah marché bi de bu ma ko bàyyi mu génn te ma ko am ko rek man pourtant man mën naa karo de doyloo na la mu jox la nga liggéeyee ko liggéey boo xam ni la mu waroon ci laaj li mu li mu waroon ci qualité li ci waroon am ci qualité amuloo am amu ko ci bu fekkee ne xereñe gi am na ba pare ba ngeen dëppoo mooy ngay laayante biir rek ki nga xam ne moo la sant liggéey bi laayante biir boo boo bëggee def dara na nga ci waxtaan ak moom ba nga xam ni dana dëppoog li nga xam ne moom mooy bëgg bëgga yéen a saa yi dafa ci benn xadis boo xam ne Abu Musa al-Ash'ari moo mu ne ñett ñi yàlla daf leen di yool ñaari yoon kenn ki nga xam ni moom ci yitteel mooy ki nga xam ni dafay jox xaqu yàlla li nga xam ne moom lay def xaqu yàlla mooy du ci du ci ger du ci wax lu dul dëgg. li nga xam ne moom dafa nekk loo xam ne lu dagan la lu lislaam maye mu def ko loolu mooy xàqu yàlla beneen xàq bi mooy ni def na ko ba pare waaye dafay nekk koo xam dafay laayante bii rek ki nga xam ne moom la seqal liggéey bi ba nga xam ne daanaka du nekk loo xam ne dañ ciy pare mu jur ak noono nee na loolu bu fekkee ne am na kooku la muy liggéey noonu bu pare da cee am ñaari yoon mooy xàqu yàlla bi nga xam ne joxe na ko waaye it xàqu ki nga xam ne moom la seqal liggéey bi nga xam ni def na ko la nga xam noonu la waree kon mbokk yi ñu xam ni ci buñ ko doon tënk mooy jullit lépp lu muy yëngu amul loo xam ni da koy def loo xam ne sharia daf dañ ni waxu ci dañ ni waxu ci lépp lu muy def rek shariatul islam jàngale na ko wax ni nga xam ne noonu lañ ko war a defee bu ko defee jullit bu bëggee mucc ci àdduna ak laaxira dafay fexe ba góorgóorlu li muy def yëpp mu fexe mu dëppoog ni ko sharia jàngale bu dëppoog ni ko sharia jàngale loolu moo koy may saadatu daarayni saadatu daarayni mooy lan yaangi liggey di ci wour lo xamni yaangi ci samé sa ngox ci wutee sa wërsëg boko défé defee da lay leew doom ñaareel bi benen bi moy defe nga ko ni nga xamni non la ko yàlla bëggé loolu mo lay jural nga am gërëmuk yàlla moy ni yàlla defal na la téraga fi ci àdduna boo deewee ëllëg mu jéggal la say bakkar yobul aljanna yàlla yàlla défa ñu ko jaar sallallahu alayhi wa sallam subhanaka allahuma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalaamu aleykum wa rahmatullah أحمدية هي سلدينة الجمل أحمدية لا فيزيون فيتور